yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa moom yàlla daf ko won lépp luy lu passé ak lépp luy ñëw mos naa gis Seydina Xasan muy ñëw mu ne sama doom ji ab sang la te yàlla dana yéwénal ci sababam diggante ñaari kuréel yu mag ci kuréeli jullit ni dama indi ventilateur bi ci bir nañ deng bi nga xamante ni wax na lolu sen bëss la waaw ah, na ah, ko bi nga ni Ali ray nañ ko abdurrahman ibnu Maljam al Muradi moko dóor jaasi ci digg bopp fekk mu ngi génn moom Seydina Ali fajar dinaan assolaa ibadallah jaam yàlla yi jóg leen julli di yeewaat dëkk bi jëm ca jàkka ja Abdurahman ibnu Maljam dal di jël jaasi dóor ko ci digg bopp fekk yonent bi sallallahu alayhi naa wax ne waaw ndax xam ngeen ñi jiitu kan moo ci gëna téxé di ñu ne ko dédét mu ne ko karayoon gëleemu salihu ga dégg nga idin baasa ashqaaha dégg nga fa qaalahum rasulullahi naaqatallahi wa suqyaaha dénga de maanaa ashqaha boobu moy ci gëna téxé di ci ñu jëk ñi mooy karayoon gëleemug saalixu léegi nag mu ne ko nag ndax xam ngeen ki gën a texee di nag ci ñu mujj ñi ñu ne ko déedéet mu ne Ali ibn Abi Talib mooy ki lay dóor jaas ci sa digg bopp deret ji dal di riix sa sikkim beeg sa baat mu ngi wax ak Seydina Ali di ko won na ci loxo lay mujj Seydina Ali toog na benn bés ñu indil ko xale boobu ko war a rey Seydina Ali ñu indil ko xale bi ne ko na ko ñaanal mu daal di gis xale bi daal di muuñ di ko ñaanal pour mu dund bi ñu yóbboo xale bi mooy leen moonte xale bi de ci loxoom laay mujj ñu ne ko ah doo ko mu ne waaw bu ma ko reyee ku may rey <laughs> ne uridu xayaatahu wa yuridu qatli la xaaka allahu yaalaka min muraadi léegi nag bi Seydina Ali faatoo nag ñi bañaloon Seydina Ali ak ñi ko nanguloon am ci ñu bëri ñu ko bañaloon ñu ñëw nangul doomam Seydina Alxasan ndax xam nga loolu dinay am nit bañal baay bi mais nangul doom bi li ko may loolu nag mooy li mu nekk moom Seydina Alxasan dereti yonent bi ndax Seydatuna Fatima mooy yaayam jullit ñëpp bëgg ko ngir soowum soxna Fatimatu bintu rasul di mu nàmp loolu nag sabab ñu daal di koy bëgg ñu daje ba nekk armée boo xam ne moo doublé armée bu Muawiya Seydina Xasan ñoom ñëpp ñu jaayanteeg moom ne ko kaañu dem Sham xeex ak Muawiya nga rey ko nangu Sham ak la ko wër bu boobaa xilaafa gi ñexal la yow Seydina Xasan toog ba yàgg mu ne leen ah, lii daal danaa ko seetaat te danaa ci teey ndax mu awye mii duma bàyyee nguur gi jaral na ko lu ne xam naa ne maa ko ëpp doole waaye bala ma koy fokkar ci loxoom jullit ñu bari danañu dee te man nag bu ma sañoon lu toll nii béjjën yooyu ñuy nàmptale xam nga boo demee ci nàmpatal yi awsa yooyu bu ñu lay nàmpatal di génne deret béjjën yooyu ñuy def deret di ñuy génne ci yow mu ne lu toll ni deret jooju di nekk ci béjjënu nàmpatal bëgguma mu tuuru ci ab jullit te fekk maa ko sabab man Seydina Alxasan mu ne bëgguma histoire am jullit ñi di dee te fekk maa ko sabab ci la reculer mu ne léegi dangeen ngeen may bàyyi ma wax ak Muawiya dinaa ko wax ne ko dinaa ko jébbal nguur gi mu jël ko mais dina am ay conditions yu ma teg bokk na ci man ak sama waa kër ak képp ku bokk ci yonent bi muy ahlul bayt mu respecte ñu jox ñu sunu gëdd du nekk buur ba pare di def lu ko neex ci suñ kow daf ñuy bàyyee suñ pouvoir ak suñ daraja benn bi ci des du bàyyi ñuy torox di taxanee karooti baytu maalil muslimin mooy banque islamique bi lépp luñ soxla nañu nañu ko ciy jox muy loolu mooy ba tey hadiya bii ngay gis ñu di ko defal surafaaw yi mu daldi ne encore condition bi it mooy bu yàlla dogalee mu njëkk maa faatu werante du am xilaafa gi day ñëwaat ci man sans te comme mag la moom gone la euh, dee ci mag lañ ko gën a yaakaar mu ne ko bu ñeenteel bi silenciel li waay moo di bés boo xamante ne ni xilaafa gi nekk na ci loxoom buur dina wax ne diw de dama ko enaloon ndax dafa maa tooñoon falu rek bëgg a fayu ci kawam mu ne loolu itam bu ko def ci kenn koo xam ne yaa ngi nekkoon ak Seydina Ali ibn Abi Talib sama baay ñi àndoon ak sama baay te mu mere leen bu mu falu mukk ne ñii danaa fayu ci ñoom wala danaa leen toroxal wala danaa leen def nii ñépp lay baal mu wax loolu Muawiya Muawiya gëmewut loolu sax ndax ni mu bëggee woon xilaafa gi léegi nag euh, bi mu waxee loolu Muawiya ne ko d'accord na waaye diw ak diw moom mënuma leen a baal Seydina Xasan ne ko kon nañ ko bàyyi mu ne ko waa déet kon nangu na léegi nag Muawiyatu ibnu Abi Sufyaan bi mu yoree xilaafa gi ba commencé magal doomam Yazid bun Muawiya moo tax Muawiya ahlu sunna dañ koo limaale ci saxaaba yi moo tax kenn warta wax ci moom lu ñaaw mais doom ji Yazid nag moom kàccoor la boo xam ne boo tuddee turam sax boo ci tegee laanatullahi alayhi daggan na mais Muawiya nag am na ñu bari dañuy juum ba di ko ŋàññ fekk moom kenn daganut ñu koy ŋàññ ndax saxaaba la donte am na ay njuumte yoo xam ne def na ko mais njuumte yooyu bu dee ci saxaaba la euh, darajay àndaaleeg yonent bi moo ko yiir ba kenn du ko wax lu ñaaw mais doom ji Yazid nag dal di dal di def piège ñëw ci soxnas Seydina Xasan ibnu Ali ñu koy wax jaadata bintul Ash'ath al diya mu ne ko damaa bëgg ma jox la som ci xaalis xaalis bu bari ngir nga poisonné sa borom kër nga lexal ko poson mu dee Seydina Xasan bu dee nag ma takk la defal la lu ne naka la ko wax loolu Seydina eh, soxna si jaadatu bintul ashas alkindiya mu d'accord kooku jox ko alal ju bëree bëri mu di posone Seydina Hasan. moo tax lu bon yàgg na ci àdduna foofu it point bu sew a ngi wara bu nit war a mën ci àdduna xoolal Seydina hasan xoolal soxna so tak nekk ak moom mu doon sa yaayi moom la ay jaambur jox alal pour mu rey la kon àdduna yàgg naa man a wore de doomu aadama itam yàgg naa lëndëm ba loola amee Seydina Alxasan moomu bi loolu amee mu feebar Seydina Xuseyn mii di ko wax di ko wax mu ne ko daal wax ma ma fayul la wax ma mu ne ko déedéet baax na gannaaw gi nag la ko ko wax waaye mu ne ko damay jël ci yow dëhël ne doo tuur benn deret ngir man doo def dara ki ma ko def bàyye naa kook yàlla sidna Xasan génn àdduna bi mu génnee àdduna ci façon boobu léegi Seydina Xuseyn wéet na moom rek moo fi des Yazid moo def loolu ngir bu baayam Muawiya dee xilaafa gi delsi ci moom moo tax mu rey Seydina Xuseynu Seydina Xasan léegi bi mu reyee Seydina Xasan nag Seydina Xuseynu jël njabootu Seydina Xasan yépp ufleen ñuy deretu yonent bi di waa kër yonent bi sallallahu alayhi mu jël doomi xasan ak doomam yi ak seen doomi jigéen ñépp daal moom bu uuf leen nekk leen léegi nag moom it lan moo ko nar a daal moom Seydina Xasan Xuseyn te Seydina Xuseyn bi muy bi mu amee cinquante six ans lañ ko lañ ko def liñ ko def yonent bi mos naa wax ne alxasan wal xuseyn sayida shababi ahlil janna mu ne alxasan ak xuseynu ñooy sang ñaari sang yi waxambaane yi waa aljanna xadis la boo xam ne imaamu tirmisi moo ko solo ak imaam ahmad ak tabarani yonent bi it ñaanal na seydina xasan ak seydina xuseyn ne allahuma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma yow yàlla man sopp naa leen ñoom ñaar na nga leen sopp ñoom ñaar hadis la boo xam ne imaamu tirmisi moo ko génn yonent bi it sallallahu alayhi wa sallam wax na ne huma rayxaana taaya minad dunia rawahul buxaari rayxaan nag benn genre parfum la genre genre cuuraay la euh, soxna soxna soxna Ndey Xadi doon na ma ko woon ci internet bi rayxaan lu genre genre cuuraay la wala yu mu demee noonu ah chose ah kon mën naa am mooy chose loolu mooy mu ne ñoom ñaar ñooy sama ay chose ci àdduna mm-hmm. benn xeetu bant bu buy xeeñ lu neex la léegi nag saxaaba yu mag yi yépp dañoo wormaaloon Seydina Al Xuseyn di ko màggal moom it mu wormaal leen di leen màggal Seydina Omar ibnul Xataab daf koo daggaloon hadiya bu mu ko daan jox da ko daan teral Seydina Abi Hurayrata am na bés ñu nekk ci benn janaasa benn jullee néew Seydina Al Xuseynu teew suufu tànkam yi daldi fënd Seydina Abi Hurayrata moo ñëw di ko faxasal suufu tànkam yi dégg nga am na sax xadis bu xaakim solo yonent di wax ne man ahabani fal yuhibba xuseynan képp koo xam ne sopp nga ma man yonentu yàlla muhammad na nga sopp seydina xuseynu seydina ali ibnu abi talib nee na daal xuseynu sama doom ji képp ku yàlla bind moo la gën a niru yonentu bi li tàmbalee ci dënnam jëm ci ñaari ndëggoom maanaam baaraamu tànk yonent bi ak baaraamu tànkam ñoo niroo ndëggul yonent bi ak ndëggoom ñoo niroo yeelam bi maanaam ba ci forme biiram forme dënnam forme loolu yëpp mook maamam yonent bi ñoo ko niroo sallallahu alayhi wa